ngeen jëf mbokk si toxlat yi Info 2S TV dal leen jàmm ci xibaar li ci jot a fes nag dañ koy na ko mbirum ki nga xam si nag euh, moom moo fële na assemblée nationale euh, ci diggante li nga xam si moo président de la république décidure bi nga xam si nar na ko def assemblée nationale te ñëpp rek yaakaar ko si le douze bi euh, ginnaaw nag ba ki nga xam ne président de la république bindi ab lee tax nag ci fële nga xam moo di président assemblée nationale muy Amadou Mame Diop laaj ko rek xalaatam ci ak li nga xam ne xalaatu député yi ci bëgg a tas rek gi mu tas li nga xam ne assemblée kon nag dañuy am yaakaar bu baax a baax président de la dafa bëgg a tas li nga xam moo di assemblée nationale bañ rek li moo di premier ministre amal li nga xam si nekk moo di akup déclaration politique générale déclaration politique générale boobu nag le treize lañ ko jàpp te le treize boobu nag ñu ko jàpp nag dafa nekk loo xamante ne si nekk instant bii nii Sénégal ñëpp rek ñi yaakaar na daal eh, ci ki nga xamante ne moo di eh, kii ni di Ousmane Sonko du def li nga xam moo di déclaration politique eh, générale bi du ko def ñun ñëpp daal loolu lañ yaakaar baax a baax di leen jaajëful bu baax baax baax te di leen wax ngeen woy di abonné di j'aime di partager Ousmane Sonko gëmu ne dina amal li nga moo di déclaration politique générale am bi nga xam si nag war na ko am